allez-y mhm. presque vingt jours parce que Diomaye Faye nekk président de la République du Sénégal lan nga ñu mën a wax si moom euh, est-ce que am na il faut pas ay trucs yoo xam ne c'est bien lan nga si jàpp. non man bokk li ma koy njëkk a ñaanal xëy na yàlla na yéen bi oyof ci moom. Mhm. mais aussi xam nañ ni am na rêve yi nga xamante ne tey jaay nañ ko Sénégalais yi dañu ne woon Sénégal wartul dem FMI dafa jëlee ci xaalis tey ci suñuy ressources. ak yenn entreprise yi nga xamante ne dañu doon képp ca fiscal na mu fay non non non non non danga non non non non da nga may déglu man da nga may déglu non non non man da nga may dama ne dafa am ci li nga xamante ne dañ ko doon tàmmal askan bi maanaam tey am nañ fi ci li nga xamante ne waratuñu jéegaan yi dara am nañ pétrole am nañ gaz am nañ zircon am nañ or am nañ diamant yor nañ tey li nga xam ne moo nekk pouvoir bi lenn rek laay xaar si ñoom ci li nga xamante ni mooy dund gi nañ fexe mu wàññeeku man de mën naa xamee état de grâce ci 100 jours boog man en tant que citoyen sénégalais mën naa ko xàmme parce que jàpp naa ne xëy na day doog ñëw day nekk di jàng day jéem a nekk di xool xëy na moom loolu moom mu nekk mu ñël beneen bu aussi nañ xam ne dañoo am benn peuple bu existant buy toog leen xaar parce que daa am le président Macky Sall tey Sénégal dafa toll foo xamante ni am na ci lu bëri ñu ko pardonné te amatul lu muy tabax. mën naa non tey am na ba bëri dootuñu ko pardonné te bu fekkee ci côté infrastructure li ci ëpp lu ñu ci waroon def am na li ci président la def. ñoom dañu ne seen priorité lenn la. pourquoi xëy waaw waaw non ñoom ñoom dañu ne seen priorité lenn la ku feebar mën a faju ndaw bu jàng am capacité waree mën a xëy xëy bu nit bëggee jàngi dem jàngi xëy na loolu nekk na ci ay yi nga xam ne tey man maa ngi toog di xaar parce que man ba mu xëyee fallu rek tak bokk naa si nga xam ne su ma xëyee damay dem hôpital principal ne ba xam est-ce dem dafay nañ ma laaj caution wala duñ ma laaj caution waaw mais aussi naa ko état de fekk six mois li nga xamante moom la ñuy moom la doon xaar kat mën nañ toog di seetaan mais man boog lii ma gis ni moom am naa yaakaar ci moom mais au yaakaar ci li nekk les membres xam ne moo nekk son premier ministre Ousmane Sonko li koy gën a sonal moom lay nekk ah, quoi ah, pourquoi parce que li ko gën a sonal moom lay nekk parce que li ci ëpp ci gémmiñ la doon dugg moo waxoon li nga xamante moom moo nekk euh, caisse noire bi les huit milliards la dañ ko war a moom bu mu ñëwee primature moo ngi te une de vingt cinq milliards chaque mois dañ ko alloué de cinquante millions pourquoi pas boobu léegi dafa une projet de loi ne dañuy supprimer li nga xamante moom moo nekk les fonds communs. mais ñu ngi doog toog waaw ngi dem conseil des nañ nañ bind assemblée nationale ne dañoo bëgg ñu supprimer li nga xam moo ne caisse noire bi 50 millions li ñu koy alloué chaque mois na taxoon ne lii kat dama bëgg ñu supprimer ko. ah ñoo ko wax dañ ne c'est fonds politiques. amul njëriñ parce que dafa fond boo xam ne kenn mënu ko auditer kenn mënu ko contrôler. <laughs> loolu ko yàgg na Ousmane Sonko toog di ko wax. suñu ressource yi fi am Sénégal war na mën a dundal boppam mais gis naa ni que démb le ministre l'économie des finances dem euh, fee ci FMI di demandé fonds gars ko dama xool yi nga xam mu nekk les copies mais aussi loolu tamit ça montre que état maanaam hmm. fi nekk mën nañu am leen loo xam a mais mën naa nag rafet njort. non faut pas dire. alors non naa nag rafet njort parce que sa premier dem waxtaani gi FMI ka dañ la retourner aussi mën nga demaat fay loolu du continuer loolu du continuer lu koy mën na dem ba nekk benn chaîne